Moustapha wax barki démb lañ ma indil ci archive Serigne Cheikh mhm. lettre boo xam ne Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass moo ko bind mhm. ci biñ mujjee dem ci rabita alamin islami ndaje muñ fa mujjee def mhm. ak Cheikh al Ajab Al Aziz muy wax ne léegi dañoo profité ci ndaje moomee defaat fi seen ndajem bopp ci lu aju ci Sénégal Cheikh al Islam wax ne nag cër biñ ma joxan mag gi ak yitte yi tax na e sama doom jii di sëriñ Cheikh muy lim jiite woon ci conseil supérieur islamique mu ne dénk naa proposé naa dénk ko sama doom jii di sëriñ Cheikh di ñaan nañ ñëpp ànd jàppale ko ca loola daan nag ñoom ci seen bopp nag ñoom ñi ko ko dénk dañ ko ko dénk mu jiite waaye danañ laxasaayu ànd ak moom jàppale ko ca lettre bi barki démb lañ ma ko indil ci archive suñu Cheikh lañ ko jëlee ñi nga ànd ak suñu Babacar Mbacke ñëwoon na fi sëñ Moussa sëñ Mame Balla waaye ñi ngi ànd ak sëñ Modou Mbacke si mooy mu dëkk ak yéen fii ci Koungheul waaye ñi ngi ànd itam ak Serigne euh, Abdou Khadir Ndiaye ñi ngi ànd ak Serigne Mbacke Diop ak euh, man euh, Khadim Souloumi nga xam ne si kër gi moom naa ko lool ak ñeneen ñu bare bari ñoo xam ne daal wax dëgg yàlla ci njabootu Cheikh Mouhamadoul Bachir muy waa këram di entourage am kenn desu Eh, ñu ñëw rek kon ni ko suñu Moustapha Diatara waxee eh, doon andi bëggan nañ sax mu gën fee yaatu waaye ni jamono demee moo tax rek sëñ bi ne eh, buñ ko defee nii rek ànd ak sëñ Babacar ak nekk fii waaw ànd ñi ñi jógee ak sëñ sëñ Bara Seck doomi représentant xalifa général de Mouride fii ak sëñ Mbaye Ndaw mi nga xam moo fi nekkal waa Daaru Xuddoos ak ak Gàmmu ak taalibe yi nekk fii yëpp daal ñi ngi ñëw eh, ànd bi andi seen gaal ànd ak Cheikh Mouhamadoul Bachir kon bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nee xamna da fay mot mottali rek barkelu ci mhm. waaye e, serigne Moustapha Diattara wax na lepp ndax nee yonenti yonente bu seex Muhammadul muntaka lañ fi andi kon nak faw rek ndega moy rek kaddom faw mu yekati kaddom li ko ko sante nee Cheikh Ahmed Tidiane Cissé al imam nee na Cheikh Mouhamadul Mountakha mi ngi lay nuyu bu baax a baax. te ne di ànd ak yow magam ju baax ji nga xam ne moom la ñàkk tañ bokk ko ak yi yéen. nee mi ngi jël siyaar bi ak njaal mi di ko teg sa nga tegal ko koy mbooleem njabootuk cheikh al islam te cheikh ahmed tidiane ibrahima ñas nek ca bobba hmm. ak mbooleem ñi nga xamne ñom ñoom la bokkal eh, tey bi yëpp serigne bi neena mi ngi lay nuyu tey feddili bu baax nak li nga xamne mo jaar diggante madina cheikh islam ak touba te cheikh mustafa jindi ko legi muy relation bu rafet moo xam ne coloré ak bokk moo ko lal di ko sàmmit ba mu agsi fii te lépp it di lu rafet te borom barab bii di Seex al Islaam doo koo xam ne it taxawaayam ci sàmm loolu ñëpp xam nañ ko ndax nee na li nga xam ne liggéeyal na ko lislaam tuubal ko dugal ko ci ñoo xam ne dugg nañ ci diine islaam loolu rek doy na ab liggéey doy na résultat te nee na ci àdduna sépp la ko def kon loola jëf ji sunu borom nangu moo mën a demee noonu yéen ñi nga xam ne yéen a ko wuutu gannaawam ci sàmm noonu yi seen taxawaay dara manqué wu ca nee na nee na doxiin wam doon dox ak ci tànk yam jaaran ca ngeen jaar rek wàccu leen ko benn yoon naka noonu itam loolee mu doon doxal ci kóllëre ak sàmm ko diggante kër yi yéen ñëm wut it yéen koy def seen kaptalaay kàttan ndax nee na diggam ak Cheikh Mouhamadou Fadel muy Cheikh ak diggam ak Cheikh Mouhamadoul Bachir ak diggam ak Serigne Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma ak mboolem njabootu Seexul Xadim gépp non lépp rafetal kon nag kon nag nee na ñoom ñii fi bàyyi li leen war rek mooy sàmm ko ba ba muy gën di rafet ba faw kon nee na ñu ngi lay siyaare bu baax di ànd ak yow ci naqar wi ci turu sëriñ bi nga xam ne mi ngi koy ànd ak yow di ko jabo bi yep ak talibi yep di ñaari tam incha allah waxtu yi demee ba yi wañi ko rek dana ñëwal boppam incha allah and ko ak yeen siaré len ko incha allah ndax nee digënté ñaari kër yi da fay lu yag lool te rafet lool dara mos ci manqué kon nak loolu né mi ngi ñaan suñu borom samal nuko ba faw ne délégation bi mu ngi ñëw and ak Sëñ lahat ak Sëñ Moustapha Diatara ak ñi tuddi ñoo ñooñu ñëpp rek bi ñëwee ba kaw la fekk fi seen doom sëñ Babacar Mbacke di jaar ci kër ga and ak mom ci ndigalu sëriñ bi and ko ak yeen taxaway bi ak alaay sigi sek mi representant sëriñ bi doomam nuyu fi ak mboolem ñi mu seqal liggéey bi fii ci taalibe yi kon nag jërë ngeen jëf jërëjëf Sow te alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sayyidina muhammadin ibn abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala maa ngi yëkkati nuyoo yu kawe yu tedd ñu jëmale ci boroomu tedd mi ci njiital Cheikh Mouhamed Bachir bi Cheikh Abdou Khadre bi Cheikh Ahmed Bamba di nuyu mbokkam yi mu ànd ak yëpp ci turi xalifa bi fii ci Medina Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ak ay mbokkam yëpp ak suma tur ak suma turi mbokk yëpp Cheikh Abdou Lahad mi ngi nii toog ñu ànd ak moom Cheikh Aboubacar mu ko borom mi ngi toog ak sëñ Moustapha Diatara Hadim Silla ak mboolem ñu des ci délégation bi ak ba muy ay Sëriñ Seck yéen ñëpp ku ci nekk maa ngi lay nuyu nuyoo bu tedd nekk ci sa tur ak sa jëmmi bopp di am kontante nag bu baax a baax a baax ci jotaay bii bii ndax li nga wax sànq ne ñaari kër yi benn la dëgg la ba muy nekk benn boobu mi dina sax amagut dëgg la ndax Mawlana Cheikh Ibrahima Niass قصيده بيملك بنت عادنا ولا نظم بيملك بنت عادنا يدخل تبي روح الادب شيء مجبر كيف شيء تقول شيء احمد بامر تقول نعرف كيف تبين الامر تقول مين نعم اقول نعم. وانا قد قال في هذا المجال الامجدو خديم خديم طه المالك اسعدوا ليس يكسب سواد الجسم البلاد ذا الفتى وسوء الفهم <laughs> لولو مو هون بامر كمان يعرف كيف تبين شيء احمد بامر ci bunt yi nit ku weex xeet lu daan xeet nit ku ñuul te moom mu dajj loolu ci jamono bu yàgg moom mu dellu si jël baytu boobu def ko shahid ci Maodo boobu nga xam ne ci la wax ba muy bind itam ci azakaay gerte am ci boroom xam-xam yi ci réew mi ñuy wax ne danañ ko azakal Cheikh Ahmad wax ne duñ ko azakal wax jooju la jël moom ci la wéeru mais aalimu cil bilaadi wal waliyu mu Cheikh Ahmadou Bamba li mu wax mooy duñ ko asakal wéeru ci moom boobu Madina ji amagut te boobu mu koy def nga xam ne ñaar fukki at ak benn nga am imaam Assane si suma mag daf maa nit si mu ne ma bàyyi la mu waxoon ba mu amee ñaar fukki at ak ba mu demee ba am juróom-ñaar fukki at ak juróom itam wala juróom-ñaar war a dellu ci boromam loolu la ma xar man ma ndax fi mu tëdd ci hôpital bi ci London dafa am benn xale bu jógee Gambie jamono boobu ñu koy wax Fafa Mbaye léegi mu ngi dund mu ngi fi Banjul école ba doon jàngee ci Angleterre ñu ne moo faraw tubaab yi ne loolu mënut a am du nangu mukk nit ku nekk ci kanam ñëpp dañ koy xanaa ñu jiital kenn teg ko ci mu dellu si nag ñoo seet si bàyyi ci hôpital bi imaam ne bàyyi kii de école bi mu doon jàngee moo ci jiitu waaye tubaab yi dañoo bañ mais foog ñu jiital kenn mu tegu ci waaye duñ nangu mu nekk njëkk gi ci école bàyyi na ko yàgg na ci ñoom ne ko béy ci Ahmadu Bamba boobu nga gis moo wax ba mu amee ñaar fukki at ak benn lii rek la doon tuuti waaw ah, mu ne man la mu waxoon ba mu amee ñaar benn ba mu amee juróom-ñaar fukki ak juróom-ñaari sax moom la ma ah, xam nga xam ne bon ànd bi boobu dëkk amut sax mm. dëkk bi amut loolu yàlla moo ko def ci njaboot Cheikh Ahmad Bamba ñëpp nekk wala ren waaye nag am ci ñu ko yàlla boole bu baax a baax mu duggante ñoom ndax Cheikh Mahamadou Moustapha bi nga xam ne mooy maam sëñ Abdoulaye mii ba mu ñëwee gànna ko bàyyi na ne ko ci kaw jumaa ji rek laa lay dalal gisuma fenn fu la mën a dalal mooy ci kaw jumaa ji kaw jumaa ji rek waaw gannaawam Cheikh eh, Gaynde mu doomam mm-hmm. moom itam continuer continuer colère googu di ko doxal diggante mu kaay Cheikh Mouhamadou Bachir mi nga xam ne moo nekkoon fii ci penc bi mm-hmm. benn lañ ñoom ñaar bu bindaan téere mm-hmm. dana ko ko yónnee ne ko seet ko moom itam su bindaan téere dana ko yónnee bàyyi ne ko seet ko nga xam ne mbokk bi ak nawleyante gi ak xaritoo gi yàgg na ci seen te kooku moom moo ñuy Serigne Kabir mi. waaw ah. dañuy itam xalifa ba nga xam ne moo nekk tey Touba muy. sama Amadou Mountakha. Cheikh Mouhamadou Fadil Sow seen diggante. ñëpp xam nañ ko. dëgg ah, feeñ na sax ci photo boo xam ne ñoom ñaar ñu ngi lëngante taxaw. waaw ah, waaw ñëpp gis nañ ko. loolu nag yàlla moo ko def. Hmm. dañoo bokk masharab ñoom ñaar. Hmm. mu Cheikh Ahmadou Bamba. bokk ci. dugg yonent bi ñoom ñaar egg fa foo xam ne ah, amuñ ku leen ñetteel ci loolu te loolu bàyyi dafa wax ne xaatif wax na ko ko kenn Madina mun a war a ci ajam 1957 da ko fi ngeen àgg ci bëgg yonent bi keneen ñetteelu leen ci nag mbokkoon nañ ci bunt bi nga xam ne moo gën a yaatu moo gën a rëy moo tax soxna si bu yàlla defee ci moom lii ngeen taxaw sëñ bi taxaw ebal lam moom loxoom Cheikh Mouhamadou Bachir mu ñëw taxaw taxawaayam wallaay lu mu diisee woon rek ñu gën a ko oyofee ci ñun ndax lii mooy mbokk bu rafet mooy ànd bu rafet ñu ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal yàggal ko fi te lépp loo xam ne naan la boo xam ne bay jur yi bàyyi nañ ko fi ak maam yàlla ko na ko tam fekk ñu fi ñun ñëpp ci jàmm ah. suñu ba Mbacké nag maa ngi maa ngi xamal sëñ bi ne suñu wóolal la lool duñ toog mukk ñaari semaine yu gisante woon nag moom boo xam ne waaw suñu jëflante ci lu nekk waaw bëgg nañu ñu bëgg ko te lépp yàlla rek ma ko waral waaw doon wax benn bis ne man de yow da nga maa jaaxal xam ci ñooñu man xamu ko ma ne ko damaa yàgg gëstu li ñu baax ñi waaw bëgg a xam li ñu nekkee woon moo tax ma xam ci lu bari waaw ma ne ko te am na ci yoo xam ne sax duur yoo xam ne ñuy nekk ci leen ndax ay secret la seen diggante ak seen borom kenn du ko wax waaye daal kontaan nañ lool ci ñëw bii ñun defal sëriñ bi ne ko moom itam ñu ngi ko koy jaale waaw soxna si jigéenam la waaw jigéenam la waaw sëriñ bi mel ni nijaay si man waaw <laughs> jigéenam la ni ñu koy jaalee yéen ñii tam taxawaay bu la kon nijaay si ñun ñu leen koy jaale yéen ñëpp di leen ñaanal yàlla yàlla màggal seen yoon feebar bii nii yal nañ ko yéex a fente yal na yàlla aar leen wattu leen di ngeen di wattoo jëli ji yal na leen ko yàlla wattoo ni wattoo téeréem bi itam ba dara mun ci yàq dara yal na leen ko yàlla wattoo yal na yàlla yokkee ci seen loxo te bu dara yàq seen loxo bu dara wàññeeku seen loxo amiin yàlla am na ndolal daa iman mm. yàlla tëbb leen ci ay ndolal yoo xam ne am fu muy am li mayoon bàyyi ak maam yi bëri na lool waaye nag yal na leen jox lépp ba pare tëgal leen seen may bopp waaw am na ko yàlla ko def kontaan nañ daal bu baax ñu leen di gërëm ci lam yi mbooleem mbokk yëpp di leen ñaanal yàlla di leen xamal na itam bis bi duñ ko fàtte mukk hmm. waaye ñu sooxoon na ne man jëf ju rafet du ma ko fàtte asalaamaaleykum wa rahmatulah e, e, e, e, dilejaki.